waxtaane baaxul sëñ Tuubaa léegi sax da ngay dégg dégg nga weesu nañ fi mu ne sëñ Tuubaa demoon ci géej géej weesu bu loolu bu ñu ko weesoo ci lu nu jëm loolu la fi sëñ Tuubaa def te keneen defu ko fi ku fi tabax jumaa jumaa yaa ngi ne xas ku fi tabax jàkk jàkk yaa ngi xas lu téere mën a wuuteeg téere yi sëñ Tuubaa ñëpp bind li sëñ Tuubaa def mooy dajeeg noonu jamonoom semmal leen bind kenn bindul alamani ak malakani laahu ak laqat axbari nii rasulullahi ci téereb sañ tubaa dong nga koy fekk te dootoo dégg sax léegi kenn waxtaane ko téere yi sëñ tubaa daan jàngale njàpp ak gamuy jàngale julli rek la ñuy waxtaan ci mbooloo sëñ ko xam ko ñibbi jàngi ko feneen li tax nuy wuyoo mbàkke di sujjóot di daanu di joxe sunu alal di rey nagu màggal du loolu du man naxa man man naxa sa wasaat sa sajada xam loolu taxu noo jébbulu mhm. lanu tax a jébbulu mooy li mu garanti yi mu wax ci boppam mhm. ak li muy jëf ci moom te itam képp koo xam ne kii dangay bañ ñuy tudd waxtaani sëñ tubaa karaama sëñ tubaa yi baaxuk sëñ tubaa gi mayi sëñ tubaa yi weddil alxuraan karaama yàlla da koy dimbalee nitu yàlla mu man lu kenn mënul nga am xam-xam ni moom mokkal alxuraan ni moom mu def loo mënul ñu xam ni lii mooy yàlla te itam sëñ tubaa du logique dafa am benn conférencier bu ma téléphoné ni ma man de sëñ Bouchra xisab maam jaara boobu mu téye sàkket wi ñu ne sa maam jaara dafa téye sàkket wi di ko téye ba asamaan set dama ko dama ciy xalaat mais ma xam ni sëñ Mor Anta Sali ni mu doone boroom xam-xam ni mu doone nit ku baax ni mu amee yërmande soxna jaara nan la ko mën a xoolee mu nekk ci taw bi yooyu xisa est-ce que waruñu koo dégg ma ne ko attention ma ne ko yow xisa bee la mag yow da ngaa indi xel ma ne ko sëñ tubaa néewul cim xel bul indi lu yenu maanaa ci mbirum sëñ ndax sëñ tubaa ci boppam yenuwul maanaa lu yéen sëñ Touba yéen wul maanaa fi ne boo taxawoon léegi sax boo ko waxee gëm waaye fi boo booroon nit ku am ndawal fanweeri at képp ànd ak tubaab yi àndut kenn yorul lu dul xalima ak daa tubaab yi yóbbu ko fetal nañ ko dellusi na bënn nañ ko dugal nañ ko ci bën dellu si na dugal nañ ko ci pour dellusi si na fexeel nañ ko dellusi na lam ne woon ma nga ca yenuwul maanaa lu yenu maanaa deesu ci gëme yàlla yàlla ci la yónnuwul ci lu la ci yonent yàlla insa nda yéenuwul maanaam mbiram yéenuwul maanaa jigéen ju xëy dégg nga ñu yóbbu ko ca jàngu ba mu ne fa ba yàgg mu xëy génn ni fàll ëmb indi doom dikki ni aw ma yéenuwul maanaa waaye bañ ko nee fa kayfa nukallimu man kaana fil mahdi sabiyyan la liir ba waxal boppam ni inni abdullahi aataani al kitaabu wa jaalani nabiyan wa jaalani mubaarakan anima kuntu sëñ tubaa newul ci ay logique yéenuwul maanaa mbiram dara yéenuwu ci maanaa mbiram jël na foofu. ma ne ko yow xisa boobu moo la mag da nga ko fee fekk te xisa bi luy defar la day defar dana tax jigéen nangul borom këram loo xam ne lii mën naa am nangulu ko koon kon lépp lu baax donte sax lu ñu inven inventé la pour mu te muy defar yow waroo ko fee jëlee. waxuma laak bi nga xamee boo ko fi boo ko weddeet ci sam xel nga koy teg te itam gëm sax lu amul moo gën weddi lu am weddi baaxul weddey tax a dem safara weddi baaxul léegi nag dégg nga wax dafa tink ku ba lu ku dégg sa moroom wax donte wax ji yëkkati na ko tuuti rek sax walla ñu apprécier ko ci sax nga bëgg caa wax yu bon bëgg ca loolu kenn du ko def loolu du tolérance te loolu du pédagogie te loolu du honnêteté intellectuelle nit ki la mu waxul amu ca benn responsabilité yow nag mën ngaa wax wax ju parallèle wax fa bu waxee lii nga wax lee jombul walla nga wax rectificatif boog dégg nga walla nga woo ka wax loola dégg nga waxtaan ci ak moom. laaj numéro téléphone am ni ko nangam ak nangam bu ko defee moom mu reprendre la mu waxoon. waxaat ko ci geneen anam. ndax loolu moo fi indi xam-xam yi waaye même addis yonent bi yépp yuy ware ngëm. ak luy wane barkeelu ak luy wane ak ma dégg nga man suuxal nañ ko naan addis yu dañuy filaag addis bu néew kilaag addis bu ràgg la ba yu baree baree bari ngëm daal lañ bëgg a toxalee ci xoli nit ñi. sëñ tubaa ku ñuy toppandoo ne nan teg suñu tànk fekk ko sëñ tubaa tegoon ku ko wax waxul dëgg mënuñu ko kenn mënu ko mënuñu ko kenn mënu ko maa la wax lii man Bouchra li nu man nun nun du nu faat waxtu dun julli te jàpp nu dun xëy te jàng nu alxuraan dun xëy te jàng nu xasaay nun du nu sàcc dun fen nun du nu lepp duñ dagu buur duñ wax lu bon duñ ko def nun kenn du mais nan topp sëñ Tuubaa fan tegom tànkam teg fa suñu tànk yooyu waxi caaxaan la ka koy wax sax xam na ni mënu ko nan gëm sëñ Tuubaa topp ci ndigalam bàyyi ay tereem loolu moo di taalibe tey wax